Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. kilifa yi ñu ngi leen di nuyu ba baax a baax a baax a baax baax baax ñu ngi leen di nuyu kontane nañu kontane ñu ngi kontane encore wax len ne bek nañu ñu ngi fi ci Passe tv j'espère que vous avez aimé vous ngi partagé vous ngi gannaaw bu abonné hein nal nal tv la la semaine passée on était à 11 000 euh, abonnés tay ñu ngi ci 18000 ak nangam 600, defena mo jumul ba jamono bi way acca way na na bir way hein? na sincèrement on veut beaucoup plus d'abonnés pour beaucoup plus partagé avec vous hein, parce que xam n'est que si yéen a ñuy jàngal yéen a ñuy wan yéen a le tracel yoon bi ñuy a di di di jàllale donc euh, on compte sur vous alors <clears throat> xam après une longue journée le soir on est un peu je dis pas qu'on s'affale mais on est fatigué chaos, parce que depuis 4 heures avant cinq heures du mat on on fonctionne je je je sais pas six heures sept heures on a trimballé euh, voilà euh, mais le conseil des ministres à mon Là, il a mercredi 24 avril conseil des ministres sama m'a wi une gis kaw def kaw tat tat tat la ma def tat waxuma tat hmm, tat coono ma tok. reprendre sama entraînement David gëj def nga ma kii de ak euh, mouvement alors conseil des ministres tey la woon tey la woon conseil des ministres waa kii euh, yow Sylvain ana gari gari ñëw mais gari gari gari affaire gis nga gari yow kii euh, xam nga xamoon naa ne bu ma ko tuddee gari laay na kër mu génne jikko Lineker, c'était l'un des plus grands buteurs anglais autant. Lineker, c'était genre Bellingham. Voilà. Non, def assuré ben wala C'était voilà, c'était un peu euh, voilà, c'est c'est la race des grands attaquants anglais autant. Lineker. On se souvient Coupe du 86 euh, euh voilà, l'époque là, la belle époque, période bobu 86 nga xamné Diego Armando Maradona impressionné won aduna davantage gannaaw bu mu ko defee 82 di wàcc Diego Armando boobu nga xam ni 78 mooy woon ca baaba nekk ndaanaan ndaanaan bu ma juuma ma bala may juuma te gaaw ci di nettali loo xam ni léeg-léeg mag wala sut na la place sop rek waaye bëgg bal ak ak noo bëggoon bal ba léegi nag xarit ba yusufa Waat mu ngi maa woo kañ démb xaw barki naan ma may bëgg bal ba tey ndeysaan sama am di jàmm

ñu leen di ziar bu baax à penser à Oumar Gueye Sène Amadou Boy Bandi Jules François Bertrand Bocandé yàlla na ko yàlla yërëm ñoom Karim Sey bi newoon ci baax bi jamono boobu yàlla na ko yàlla yërëm moom itam kon gàndam attaquant mu joon nekk professionnel Gabon maa ngi xalaat la race de l' nationale au temps ay Makuñas defe naa ñu ngi may wax bu mujj mu doon Bruxelles ñoom ñëpp leen di xalaat a ay Youssou Mbengue jamono Uzo Babou Touré la légende inconnu du Sénégal et des Sénégalais ah Christophe Sagna maa ngi xalaat sunu bàyyi ñoom Cheikh Tidiane Fall ak ñu ci des maa ngi xalaat kii euh, Roger Mendy Racine Kane ñooñu foog ñu dem gëstu won leen Sénégalais yi ñu fàttaliku leen ah Sylvain Sylvain boo toogee baax na boo taxawee baax na boo neexee sax nga toog ñu waxtaan ndax euh, conseil de ministres dafa amoon laa ilaha illallah sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa J'ai vraiment envie de une émission football c'est parce que y a tellement de bons souvenirs kérok maa ngi juum naan défenseur la won amna ay kilifa yu ma rectifié na ma c'est un grand attaquant j'ai vérifié c'est vrai 1m90, 100 kg kilos nangam xam nga ni kooku punkal la deuxième but ou premier but ou troisième but Allemagne Allemagne période bi ñi non contre bi Allemagne yag na non noggatu France France mu ne 3-1 Allemagne toog tegal tongal leen dix minutes xaw ma quinze minutes de la fin du match ñu égaliser ca la Marius Trésor dugale bii bu rëy ba reprise de volée ba tey Trésor tubaab yi fàtte nañ ko alors que c'est une légende mais xam ngeen fi maa waxee ñoom légende yu weexe lañuy la ñuy mettre en valeur yu mag yi dañ leen di bala ngeen kaa xam Mbappé bàyyi football Zidane dañ ko mënulul dara mënuñu ci moom dara moo tax amuñu choix seen dikkoo ma neexut Bon, bref, c'est de bons souvenirs. Je pense à Toto Schilacci, Roberto Baggio, hein, hein, le grand Romario. Et eh ouais, Romario, Romario passe tant que gâté, passe yu gaaw Romario est pivoté contrôle orienté wëndelu ci bal bi. Mel ni Donc non, Eh, football amoon na. La ilaha illallah, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bon, bref, ma yamandi foofu. Bala, bala, bala ngeen ma mere. Communiqué du conseil des ministres. Ah oui le deuxième le second sous l'air Bassirou Diomaye Diakhar Faye le conseil des ministres a eu lieu ce mercredi 24 avril au palais de la République sous la présidence du chef de l'État son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye Sylvain le mën nga tok mën nga jël sa temps nu waxtaan waaw waaw waaw waaw mu ngoog et eh, voilà Sylvain toog na <laughs> comme gari moom def na mëninam gari bala ma dee bu ñëw rek naan ma tox man gari gari daal jaaxal na Sylvain ba angi baax angi tranquille dara mettiwu la cadre nga ba baax maa ngi si biir toolul wàccul kiiwul internet yi dañuy veillé de ñu naan ma waaye paase ne sa caméraman bi lu moo def nii te nee nañ ma caméra bi warut yëngatu warut a kii trépied bi bu fi nekkee xayrul bu fi nekkul xayrul ndax professionnel ngeen ah ba jekk na <laughs> Sylvain déconcentré wu ma la de damay waxtaan ak aw rek conseil des ministres du mercredi vingt quatre avril hmm? Sénégal a ngi avancé nag. réew maa ngay dox wallaay réew maa ngay dox sant yàlla yàlla na nu jikk yàlla na nu jikk yàlla na nu yàlla na nu ko fekkee ba sëtaati te tal ko di nettali nag naan ay 2012 vingt 2024 li nu daj ak ñooñee may wax ñu naan dañuy dem France man bi ma xëyee ci suba et puis la presse sénégalaise là c'est bien d'alerter mais à un moment donné il faut vraiment qu'on oublie l'ancien régime à li ñu fi def nag tol na ni àdduna ci lu bon ma gis Macky Sall

ca Figaro di waxtaan et puis à l'aise tranquille sûr de lui non dans dix ans il va falloir que l'Europe te ne nous seytaane waa ba jiba au lieu mu wax boppam moom ne non France il faut que mu dem non non mu dugal ci Europe pour mu garder pourquoi ko defee da ci Amérique Israël ak ñeneen ak ñeneen africains yi jóg leen africains yi jóg leen tey na le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye panafricain à l'heure Ousmane Sonko le premier ministre panafricain à l'heure et tout le gouvernement toute la république sénégalaise nous ne convoqué nañu ambassadeur de France Nous une déclaration de guerre bi kilifa bi di wax lan qu'est-ce qui se passe éclairez notre lanterne monsieur l'ambassadeur non la non nous non qui non nous yéglou, mais non nous yéglou. na non la nan la ñu ben général quelqu'un de l'armée il est du département stratégique de la République française xam nga waxam du waxtaan nii hein, waxi kaw la lu nu waxtaanee la ci suuf mu leen nañ ñu cee ndox di ci na léegi nag ñëg nañu France dañu ñëg léegi nag fi ñu jëm nag fi ñu dañu baadoo la de fi ñu jëm ak ñun mooy songunu waajal leen seen bopp nanu wajal suñu bopp duñu yàlla duñu yonent il faut être ferme avec l'ennemi quand quelqu'un vous menace vous le prenez très au sérieux et vous et vous réagissez vous vous organisez, vous lui montrez que vous avez vraiment son temps pour lui faire face parce que ni y a. et puis le ben genre cax la Non, nous de tok nous avons dit ko pour nan la réagir Nous nous ñu ngi dans les forums dans les plateformes les peuples en parlent mais les dirigeants n'en parlent pas alors que les dirigeants ñoo wara a Afrique nous wara a Nous avons wara ne français bi wax la il a dirigé l'armée française en 2017 Nous période la wax la attention attention attention attention Sénégal Afrique de l'Ouest Afrique en général la France nous menace la France nous menace la France nous menace faisons très très très attention c'est inconcevable c'est inadmissible c'est abusé, c'est de l'impolitesse notoire vis-à-vis de un milliard, on va dire de plus d'un milliard de personnes. Un général se paye le luxe de nous parler ainsi. Dans dix ans, il va falloir que l'Europe réagisse pour défendre ses intérêts. Et nom de Dieu, et nous, Africains, nos intérêts, on a fait quoi Ah d'accord, nous ne sommes pas, c'est quoi Nous sommes des bestiaux, entre guillemets alors, on retourne au temps de la haute barbarie, au temps de Charlemagne, où on va devoir faire quoi Faire mal à des populations comme on l'a toujours fait Vous avez déporté plus de 300 millions de nôtres, des nôtres. 300 millions de nos ancêtres. Vous les avez déportés. Maintenant, cela ne vous suffit pas. Les petits-fils et aïeuls, il va falloir les attaquer, les démonter, les démonter, les massacrer, les annihiler pour vos propres intérêts. Afrique, réveille-toi Sénégal Jotna na de am na loo xam la né. yamandi Lo def spécial édition soobee Yalla. pasteur, ci page TV le conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 24 avril au palais de la République sous la présidence du chef de l'État son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye bala may soré. képp kuy imam nek ci Sénégal di japp di képp ku nekk ci église bi di julli képp kuy sénégalais ak loo munti jaamu ak li mu doon képp kuy sénégalais di africain saa yoo xëyee ñaanal yàlla général Lecointre boobu ak ñamu mu àndal ak ñay dox ci loolu ak ña cay ña koy ña wëlmbët ak seen ay complices yu nekk fii nekk ci biteeg ñëpp di leen liggéeyal yàlla na yàlla nasaxal leen nasaxal seen ay pexe yàlla bu nu ko tal yàlla nañ kon yàlla na nu nërmeelu ba du nu talati lu ni mel ci barke saraat faat ak alxuraan. barka Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam voilà comment on anéantit un peuple yalla bu ngeen ko tal le coin ak ñinga andal ak say complice ñalay jappalé jàppale ña yow ak ña mel ni li ngeen di bon melni ni ñu tam le chef de l'État sénégalais a constaté lors du Conseil des ministres de ce mercredi 24 avril la dérégulation des marchés des produits et services de grande consommation en termes d'approvisionnement de stock et de prix. Dans ce lot, il a attiré toute l'attention du Conseil sur la situation des denrées de première nécessité. Aussi indique-t-il les prix homologués en gros et surtout en détail du riz, du sucre, de l'huile, de la farine, du lait et du pain notamment, doivent faire l'objet d'une surveillance particulière et permanente de la part du gouvernement et des services compétents de l'État. Le président de la République a en outre rappelé au Conseil la forte préoccupation de ses concitoyens concernant la baisse et la régulation des coûts des loyers et les facilitations pour l'accès à un logement décent. Président de la République le Diomaye Djahar Faye ci premier ministre Ousmane Sonko Bidjité, jiite ndaje ministre gouvernement bi dans son ensemble mu Hamalne, xamal bi am ci dundu Sénégalais, ak seen jëndin ak la ca addu yépp ëpp na dayo ëpp na tool yéeme na ëpp na waar dañ cee war a taxaw na mu gën a gaawe lijjanti ko ba mu yemb ci nit ñi ndax coono biñ cee dund conseil des ministres bu tey bi wax na ci junjoon na ko keroog junjaat na ko tey xanaa gannaaw ba mu ndaje ba mu ndaje ak ñi nga xamni ñoo di euh, le secteur privé ñi nga xam ñoom lañuy wax secteur privé suñu baay yooyu nga xam ni ñun ba ñu juddoo ba tey ñoom lañu ñu ci mbir moom ñu leen cee gërëm ba baax seen taxawaay rafet na am nañu yaakaar ne ñu ngay dox ci transition je dirais pas de génération mais en tout cas transition ci ñi leen war a wuutu ci ñoo xam ne war nañu xam liggéey bi war cee mën a dox gannaaw le secteur privé les syndicats bi nga xam ne président de ñoom ñëpp daje na ak ñoom diggante bërki démb ak démb pour waxtaane lu ñu mel am nañu yaakaar ne dana yemb ndax jënd jaay bi en tout cas les denrées de première nécessité ni mu mel ci dëkk naa suñu bokk boutique yi am na fu ñuy daje fële ca Pikine bu ma am na fu ñu ma wax fu ñuy daje foofu ca pour chaque semaine ñu teg dara ci prix yi ndax boutique yi léegi chaque semaine ñu yokk vingt cinq cinquante da ngay xëy rek muy yokk da ngay xëy rek xamoo fu ñu ko teg bo waxee dañu ñu ne ah niñ koy jëndee la de te ñoom ñëpp kaa déggoo wax loolu kilifa yi gëstu leen quoi prix yi ñu yokk ni dégg naa Pikine la wala xaw ma fon fu ñuy daje ñoom ñëpp chaque semaine fa la ñuy daje di def lu ñaaw lu ñu mel nii ci population sénégalaise c'est inadmissible le service du contrôle économique anamu amoon na fii temps daan nañu dugg ci boutique yi di contrôler on les voit plus on les entend plus c'est comme le service d'hygiène au temps ils étaient présents on les voit plus ce pays a été massacré désacralisé déshumanisé à partir, je dirais, d'aucuns me diront, oui, les libéraux de 2000 à 2012. Non, je dirais que la catastrophe qu'on a vécue a commencé en 2012. depuis l'avènement de Wad. Non, Wad avait de bonnes intentions. Sénégalais, C'était un pur Sénégalais. Dafa di yalla da kar nato mu perdre sonu baye ba Boubacar Sall bi nga xamni dafa deug won lol nekkon ci wétam. Perdre à un moment donné ño xamni c'était les vrais anciens. Ñu ngi xalat sunu baye bi Fara Ndiaye, yalla yalla yërem ñep ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne jege woon nañ ko lool doon ko jàppale ci dëgg malheureusement Ablaye Wade bi moo falu ñamel ni ñooñu ñoo ñëw jege ko yàq nguuram malheureusement quand il est parti on est tombé sur oh là là oh là là oh oh oh, oh ci li nu dal ay ci li nu dal nguur goo xam ne lëndëm na maara day umsile yàlla xam dem na sanu maam ya sanu bay ya sanu khalif ya bah ñep mel ñep mel ñu genn dem banok mom ay yalla yalla ya leen yalla yalla dimbali sénégalais waye fa ca lañu dal musiba ma ba kumba bo xamne ken xam lu mu doon sylvain ba angi bax xam nga ni nga yëngalé sa bop bi xam nga ni lima la wax amna xawna no dem fe waye yalla bari na sutura du deug le président la république nee na jënd jaay bi ci réew mi dund gi tar gi mu tar nanu ko lijjanti na mu gën a gaawee dérégulation la wax maanaam yoonal bi mu waroon nekk nekkatul dañ ñoo setaan dañ ñoo setaan ëpp na tool ëpp na tool may wax ne may wax ne

motax tax yi ne Barça wala Barça ne dem de ci geej gi mo leen ko gënal lool nak ñinga xamni ñoo fi nekkon tek bu ko dem nañu dem nañu nak di dox nak di lijeenti bëgg ñoo top di liggéeyal tubaab bi yow nga lor sa réew ba doyal ne non non des na faaw ma continuer liggéeyal tubaab bi lan la motax le Sénégal la République sénégalaise la République Senegal, Sénégal dafa war lank di toog ñu naan ko sa ancien président mu ngi liggéeyal France du yoon fii ka waxe pacte des peuples pacte de Paris pour les peuples et la planète moi lan qu'est-ce que ça veut dire c'est de la fumisterie république du Sénégal on ko T'as fait les nègres, ne ba bu recevoir kenn pour cette organisation là dañ leen kaa ñaan vraiment vous diriger. mais ñu l'en leen kaa ñaan kap ka yàq on voit waru leen la mission ak pas ma baat sa kaw yooxuma de dama tiit ndax pexe yu bon ñu nekkoon ci réew mi léegi nag li dangereux mooy dañu dem nag à un niveau bu bu extraordinaire dañ ñoo xamal xam suñu lépp nag dem di liggéeyal tubaab luñ ci jublu dénonçons cela le président Macky Sall ne doit pas aller travailler pour la France loolooy dëgg au nom de quoi pour nous faire mal davantage c'est de la haute trahison noo ko li ñu daj fii Safa ak Marwa jël lépp jox ko tubaab bi léegi nag pare nag dem di leen liggéey pour lan li xew Sénégal yëpp ni moo doxeek ni moo lépp mu war a nekk en link link avec des links par ci par là di continuer dinu nu sonal pour lan loolu dafa war a dakka yàlla nañ ci yàlla muccal ci seen i pexe yàlla nañu yàlla muccal ci seen i pexe yàlla nañu yàlla muccal ci seen i pexe yàlla bu ngeen tal seen i pexe yu bon jëmale ko ci Sénégal président de la république Diomaye Diakhar Fay, il a en tout cas il donne des instructions au premier ministre au ministre en charge du commerce et de l'industrie des finances et du budget et de l'agriculture de lui proposer avant le 15 mai 2024 un plan d'urgence opérationnel de lutte contre la bichère assorti de mesures hardies de baisse des prix des denrées de consommation courante ainsi que de certains services essentiels. Le président de la République a, dans cette perspective, souligné la nécessité d'impliquer les associations de consommateurs, les industriels et les opérateurs économiques en vue de bâtir des consensus durables dans l'application effective de nouvelles mesures visant l'allègement du coût de la vie pour les ménages nee ministre agriculture premier ministre ak ministre agriculture bi nga xam ni moo industrie ministre agriculture nee na premier ministre ak ministre yi nga xam ne ñoo commerce ak industrie finance ak budget ak agriculture maanaam ñi amee alal bi amee jënd beeg njaay mi amee usines yi sur suñu budget ñooñu la wax fukki fan ak ci document stratégique plan d'urgence Pour xamni ci la pour Sénégal lu nit soxla service essentiel nit soxla li du luxe soxla la ñu que plan d'urgence dina ci sukkandiku le président de la République nee na nañ ci boole mbir moomu plan boobu nañ ci boole association de consommateurs yi boole ci ñi ne ci usines yi boole ci opérateur économique yi donc industriels yi pour que mu am déggoo boo xam ne day sax da nga wax ni pour que niñ cee war a appliquer décision bu mu ci war a jël nekk loo xam ne du nekk lu ñu jël rek nii tey non luy wéy la luy dëgg réew mi waaye nan defar réew mi

Bassirou Diomaye Diakhar Faye nee na loolu yëpp nañ ko lijjanti am ci un suivi essentiel bu sincère pour que loolu moom lay wax contrôle économique moo amoon dans le temps amatul loolu lay wax ne nañ ko dekkal ba kenn dootu fi yokk ay njëg teg ci lu ko neex jërëjëf Bassirou jërëjëf appliqué rek na leen appliqué rek waaw bu fet jotee ñu mel nii ñooñu mel ni ñu ñu yónni ci ñun di fëyi fëyi di lëyi loo xam ne jaayoo ko ak nga bugg ko jaay ci benn fan loolu la ñuy wax ne dafa war a dakk Sénégal le chef de l'État a à ce titre demandé au Premier ministre de mettre en place à la primature un dispositif d'alerte précoce et de suivi des prix et approvisionnement du pays en produits et denrées essentielles waouh je ne beeg bi dana la si de xam ngeen ko kaa Basirou merci na Premier ministre Ousmane Sonko te xam nga Ousmane ci moom yooyu da cee sawar yàlla may na ko lool nee na ca primature fa premier ministre bi Ousmane Sonko nekk nañu fa teg benn organisation dispositif d'alerte précoce et de suivi saay lii mënut a et de suivi des prix et approvisionnement du pays en produits et denrées essentielles foofu la ñuy lijjantee mbir mi ministre du commerce ak ñëpp dañuy lëkkaloo primature xaaj eh, lanceur d'alerte yooyu ñuy wax nag ci boutique yii la baax ak ñu ni yii jaay yii loo xam mënta xam ni mbir mi dafa war a jar cent franc non nga ñëw mu ne cent cinquante la de ah yokk de du si ñun de au nom de quoi mel ni ñu du ay nit suñu biir dëkk ñu bëgg ñu fi def ñooñ ak da dakk le président de la république est également revenu euh, Basiro Il est revenu sur l'impérieuse nécessité d'assurer un suivi permanent de l'évolution des coûts des loyers, beaux à usage d'habitation et commercial, à Dakar et dans les capitales départementales. Bassirou Dal, la song à loyer Priorité là Oui. Oui, priorité là Oui. Sylvain, Yann sa xol mu ngay sedd a ngay kontaan laa ilaaha illallaah waxal waaw waaw kontaan naa sa kaw wax ko bëgg nga sa kaw waaw waaw président daa fi nee na nu ñu lijjanti dund ak location suivi permanent de l'évolution des coûts des loyers baux à usage d'habitation et commercial à Dakar et dans les capitales départementales Sénégal yëpp location day dellu fu mu ne woon dund bi noonu looluy dëgg Le chef de l'État a, au demeurant, invité le ministre de l'Industrie et du Commerce à veiller à la transformation du commerce intérieur qui passe par la modernisation du commerce de proximité, en l'occurrence les boutiques de quartier et le développement de stratégies innovantes et efficaces de promotion de la consommation des produits de nos terroirs. <laughs> Président de la République, Nena. Ministre du Commerce et Industrie na lijjanti lepp luy transformation ci njaayum réew mi biir ak biti da nga wax bi ci njënd mu jege mi bi nga xam ni nu mu gën a euh, population yi la la le commerce intérieur qui passe par la modernisation du commerce de proximité parce que commerce de proximité mën nga ci dégg marketing direct mën nga ci yobul waji produit bi accès bi la poste pour travailler sur ça Sonadis kilifa yi delloo si ko bu Sonadis fonction publique privée mais ici vous bi dé francs ngay am ngay dem di dem Sonadis des prix homologués bien normaux tango fi mo a sénégalais yi dem Sonadis di fa jënd Sonadis concurrencer Auchan nous avons les produits sénégalais defar ko ba mu baax dugal au fa vous bu la produit sénégalais Vous da koy deux fois trois fois le prix Sonadis nekk ñu privilégié c'est ça la rupture sénégalais yi am plaisir dugg Sonadis ba au dugg Auchan Auchan ñoom dañuy business ñu business un problème Comme on est, nag u dem Auchan vous avez produit tubaab yi la arrangé nga un problème mais qu'on ait nos nos surfaces nos grandes surfaces nos hypermarchés voilà ngay indien yor exclusive exclusive tubaab bi yor Ocha di lekk suñu xaalis di dem dina ko teg coono coono Ocha ba muy door ñu naan waaye Ocha dafa yomb seen prix multiplié nañ ko par nangam mais di dem seen yoon di dem seen yoon France Télécom di def loolu ak loolu di xoolal dugg leen ci Elton yi du nangu Wave Orange Money rek ñoom seen biir entre actionnaire. France Télécom nangam nangam état bi di ci am vingt trois pour cent France Télécom di am quarante deux pour cent état bi vingt sept pour cent lay am actionnaire di am vingt trois ñooñu ñëpp ñoo link Elton bi nga xam ne Sénégalais la malheureusement ñu dugal ko ci Gambie certainement les actionnaires nga boole ko Canal Plus fu mu jëm fan la ñu jëm Canal daaneel Excaf moom di profiter di ñu jaay suma ay chaînes ñun sénégalaises président barke salaatul faati am nga liggéey am nga liggéey de te yokku leen sécurité bi yàlla na yàlla sécuriser président de la république sécuriser premier ministre sécuriser ministre yëpp ak seen ay njaboot yàlla na yàlla sécuriser sénégalais yëpp sécuriser ñu sécuriser ñëpp parce que nguur gi fi nekk neexul tubaab yi neexu leen ay saay-saay lañu ànd ak seen ay complices yëpp bon nit yëpp bon yooyu jaaykatu réew yi yi

Nous jël suñu yaay yeeg sunu bàjjen sunu tànn ñuy ko defar ba mu baax industrialiser que di ko joxe di ko jox sunu mbokk quand vous avez une diaspora qui fait rentrer plus de 1500 milliards l'année dans votre pays ce qui peut servir comme une banque da nga kaa boole ak économie solidaire sénégalais yi saa ñu xëyee ku ci yor sa téléphone yónni 100 100 francs banque ba banque nationale populaire du Sénégal nga yónnee fa 100 francs. 100 francs, beaucoup de sénégalais bu nek yone nombre d'abonnés euh, orange nombre d'abonnés free nombre d'abonnés expresso vous avez presque 15 millions de sénégalais voire plus vous allez avoir ou nous allons avoir un milliard millions par jour ne multipliez que par 30. ça fait 150 quoi ça fait combien 150 milliards Beaucoup calculer sur l'année c'est énormément d'argent ça peut nous servir banque mondiale FMI nous avons partenaire UBS, Russie Chine Inde Afrique du Sud Brésil ak Amérique latine ak Arabie le Golfe ak kan yow yow yow jëlul indépendance yow la la le président de la République après avoir analysé et surtout nos partenaires les premiers les Africains un milliard de personnes marché buñu défaré tali buy déparé afrique du sud yéeg fi ba europe jaar méditerranée tracé route yi autoroute yi tracé pont yi afrique loolu nag la tubaab di bañ ñene nañu africain yi buñu nande rek tay ñu dee nan ngeen mëne comprendre continent wu six millions bëgg dominer continent wu un milliard et quelque bëgg dominer aduna ndax lan seen xarañ ak seen xel waa ëpp ñu xel fii la ñu sàccee mathématique nanu yeewu nag mais nag

dès la prochaine campagne de production agricole la mise en œuvre de la doctrine de souveraineté alimentaire, la DSA, en cohérence avec la nouvelle politique d'industrialisation, de valorisation et de consommation de nos produits locaux. <laughs> Eh, je rigole. Je rigole de joie. le yalla may fait tal. Eh samba. Hein? Ouais, Le Sénégalais mérite de bien vivre volonté décision dëggu jub jubal jubbanti wala jub jubbanti jubal jub jub jubal jubal u d b e tréma l j u d b e tréma n t i kilifa yi barka alxuraan kontaan na ma yàlla na yàlla kattanal yàlla na leen yàlla kattanal yàlla na leen yàlla kattanal yàlla na yàlla nit boo amee gëm-gëm boo ragalee yàlla rek dinga dëggu di liggéey juróomi waxtu yi moom boo ko fonkee tey jullit boo dee chrétien di dem église boo dee juif di di jaamu yàlla jaaral ci yonent yàlla Musa mais xam ni gëm nga dara même latin même ki nga xam ne gëmul dara sax gëm na ni moom gëmul dara. mais kuy dem rek non donc le chef de l'État a ainsi demandé au Premier ministre de superviser la nouvelle vision volontariste da wax la doctrine de la souveraineté alimentaire DSA président Bassirou Diomaye le Fay di wax politique d'industrialisation bi mu bëgg a doxal ak li nga xam ni mettre en valeur suñu ay produits locaux liy jóge ci suñu suuf du dooleel ka ba mu amal ñu njëriñ ci fànn yëpp il a donc demandé au premier ministre de superviser la nouvelle vision volontariste endogène et consolidée de nos politiques publiques dont l'objectif et d'atténuer de manière significative la cherté du coût de la vie et de soutenir durablement l'amélioration du pouvoir d'achat des populations par l'accès à des denrées et produits courants de qualité et à des prix accessibles. au moins ay ni da nga di bëgg a la eh, interpellé la dernière fois je pensais que deux journalistes partisans, parce que je je vous pensais beaucoup plus objectif que cela gis Yangi défend le gouvernement bu le nouveau président bon je vous comprends personne euh, vous étiez journaliste dans l'opposition avant au temps de Macky Sall maintenant vous êtes avec le pouvoir dama ko xool na bal, yàlla baal bal. nit kenn ko tuutal te kenn du xeeb sa moroomu doomi adam ndax ko xeeb mu yëpp la ku xeebu ku ne ci la waaye kilifa faut bi mu waxee loolu am na ma kersa mais xool na ma ko ak gannaaw yëg bi ma am ci moom ci respect beeg yëpp xool na ma ko ak euh, bëtu c'est regrettable c'est triste c'est triste on a défendu dëgg contre l'incongruité bi fi amoon sur la base de principes de façon simple éternelle et honnête mais hélas quoi on préférait se taire ou on préférait être complice. tey ñooy ñooy ñëw naan wéy l'équilibre de l'information baa xeexee dara ba nek si yoon bi daa tegu si dëgg ba consolider que conforter que ba keroog ngay gis nag loola jaaxal heure bu nu ko gisee maaradi um si loolu yalla bu am heure bu nu ko gisee nanu ko daan waxee lanu ka waxaatee waaye pour l'heure ñu ngi ci tabax bi tabax bi nak ñëpp ci wara a du jàpp ci gëm rek nii de déedéet app ci ak xel bo gisé lu doxut nga wax ko luy dox nga apprécier ndax ñun duñu doxum ci mbirub sheytaan ak waaba jiba waaw kamu neex ak kamu neexul ka bëgg ka bañ kamu saf ak kamu saful kasi kontaan kasi kontaanul kasi ànd kasi andu la sa dess no des ge ñente you don't care président basirou diomaye jaxar fay mu ngi dox ci ñu yombal suñu dund le président de la République a d'ailleurs sous ce chapitre donné des instructions au Premier ministre pour accentuer les réformes visant l'amélioration de la concurrence dans ces différents secteurs d'activité et la préservation soutenue des droits des consommateurs président Bassirou Diomaye ñun nga consommer jënd sant premier ministre tire na gawé gën l'équipe sous les travail on les accompagne on leur met la pression positive jusqu'à ce qu'ils triomphent davantage pour le bien du peuple de l'ensemble des Sénégalais y compris ceux-là qui vendent notre pays les vrais traîtres sont aussi des Sénégalais y en a ñooñu ci nek te doon ño xamni suñu ay ñon lañu préféré diñu jaay mo xam ci ignorance mo xam ci tayeef mo xam ci limu doon mo xam ci égoïsme wala égocentrisme dañuy ñaan suñu borom bu bal leen waaye di wax ne li gën a jekk ci ñoom mooy nu ànd ci li baaxal bi réew mi te loolu di ko baaxal nag yàlla na ci yàlla boole le chef de l'État a ensuite beaucoup insisté sur la formation professionnelle et technique ainsi que l'emploi des jeunes qui demeurent selon lui des priorités nationales jàng boo xam ne da ngay jàng ba doctorat pare ñu jox la bureau nga toog ñu ne la liggéeyal nga toog naan euh, qu'est-ce qu'on doit faire euh, quels sont les voilà nous war la jox information formation professionnelle la pratique bi la pour que bu defar bi rek la viré ainsi de suite ubbi mbir mi sénégalais yi defar defar lay def technologie lan la en mathématiques préparer pour la technologie des grands services ainsi de suite waye di jàng rek di tar rek dem euh, Émile Zola Victor Hugo Voltaire Descartes je pense donc je suis nga nan wuy théorème de Pythagore théorème de Thalès sàcc yoy dem euh, Égypte ancienne sàcc fay information bu ñëw taxaw égyptien di waxtaan suñu bokk noir yoy fa nekkon même pour dans l'histoire pour fen dañu jël image changer ko bu ñuy wax bu ñuy nettali la xew Égypte duñ né ay noir a fa nekkon dañ koy dañ koy dëpp naari ñoo bon Cheikh Anta ñew di lepp wane nek ñu dem ba sës xamni mënu mënuñu ko weddi ñu nasaxal ko xex avec la complicité de certains blacks cam ñoñu ñoñu fi neewon ñen ñi Senghor a combattu Cheikh Anta Diop Abdou Diouf a rétabli Cheikh Anta Diop en 1981 20 ans nga xañ Cheikh Anta mu jangale ci université bi nga né académicien nga yow yéene nga ñu lu baax ay bokkam nañ ñu bal Senghor sunu mam la mais il a déconné heh, Mamadou Dia xex Lamine gey xex Cheikh Anta Diop ñett ñooñu rek Sénégal départon na bu yag Lamine gey Lamine bakhar Wali bi daan joxe bourse yi sanu mam xalé yi di jang jamono joju président Ablaye wad rek ñi ñep ci lañ déme won jang ak ñeneen ak ñeneen nga xex leen ndax lan ay sénégalais lañ gëm seen réew ni ñom Ousmane Sonko yi mel Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak seen équipe ñu mel ni ci ci principe xex gëm réew mi la des leaders dans le temps meloon en Afrique ñu faagaagal leen période pré indépendance ba li ci top képp koo xam ne amoon nga ce sens leadership panafricain la tubaab yi faagaagal nañu la France en tête ay premier ministre ay ils ont tué beaucoup d'Africains pour seen ay intérêt looloo fi jeex donc formation professionnelle bi président wax à ce sujet qui formation professionnelle le président de la République a demandé au Premier ministre de prendre les mesures idoines visant à mutualiser et optimiser les ressources et interventions de toutes les structures publiques de soutien et de promotion de la formation professionnelle, de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes. Il a à cet égard demandé d'harmoniser les bases de données sectorielles relatives aux demandes et offres d'emploi formation professionnelle Les lépp la ci aaju président bi nee na premier ministre bi na ko liggéey ci na mu gën a jekkee ci na mu gën a yembe mu amal ko pour que xale yi ñu former leen comme il faut ensuite yóbbu leen ñu liggéey le chef de l'État a demandé au premier ministre au ministre en charge des finances de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et du travail de procéder dans les meilleurs délais à une revue de l'écosystème des structures, moyens d'intervention et offres de formation professionnelle technique en vue d'améliorer l'allocation des ressources destinées aux cibles de la formation professionnelle et technique. Bon, il y a une petite répétition à ce niveau. Euh, je pense qu'il faut y aussi dans l'écriture, certainement, relire un peu certaines euh, certains paramètres de votre texte yéen ñu raw ci njàng mi sunu xalaat rek la no joxe bàyyi leen ci xel parce que tubaab dafa soof làkk ba soof la làkk ba naqari ba soof Alors, en vue d'améliorer donc l'allocation destinée aux cibles des formations professionnelles et techniques, il a sur ce point indiqué l'urgence d'implémenter à la primature un système de suivi des politiques de promotion de l'emploi des jeunes et de veiller à l'insertion professionnelle rapide des jeunes diplômés de l'enseignement en français et en arabe Ganao, mbiru contrôle bi ci walu commerce beeg la ci dess primature président de la république mu ngi wax tamit ñu implémenter manam bàyyi xel ci primature benn système de suivi manam que primature tamit ñuy top di saytu bir mom. gannaaw bi nga xamni ministre concerné bi mu ngi dox pour que mu am le président de la République a également demandé au Premier ministre de veiller à la territorialisation des politiques de formation professionnelle et technique et d'emploi des jeunes. Conseil des ministres, jusqu'ici, le Premier ministre est renforcé et c'est très bien c'est le Premier ministre qui travaille avec le gouvernement et qui rend compte au président de la République. Il faut le dire. Parce que dites njëkk dañoo mon président boo xam Premier ministre bi dafa mel de façade Il rek da dana ko wax ak ministre bi wax ak kee nangam nangam etc. cetera le président contrôle tout le service gouvernemental mais ginnaaw am nga Premier ministre jaara ko ci moom euh, Monsieur le Premier ministre, euh, votre ministre du Commerce, qu'est-ce qu'il a encore fait J'ai vu qu'il y a euh, la presse qui parle beaucoup de lui, qu'est-ce qui s'est passé premier ministre daan ko que oui effectivement c'est c'est mon élément nangam ak nangam waaye président bi djegi rek dem wax ak ministre bi premier ministre bi djegi djegi deg ni président bi mu ngi ak ministre bi ces incongruités incongruités dund nañ ko ak président Macky dans le temps mu jur à chaque fois muy am jafe-jafe ak ci premier ministre da nga wax bi on dit en passant cette commodité qui existe entre l'actuel président et son premier ministre c'est dû certainement à fini djogé Jar jaar ak choix bi nga xamni premier ministre moko tan tànn président bi c'est quelque chose quand même euh, dont dont d'aucuns ou certains euh, sur lesquels en tout cas ñen ñi amna ci jafé jafé ci nek dañu am impression que le premier ministre a trop de pouvoir non c'est pas trop de pouvoir c'est une réalité de contexte ni mbir mi tëddee la il faut le comprendre ainsi encore que li yone moy premier ministre bi moy doxal liggéey bi ak gouvernement bi le président tek na la mu war tek teg na sa ligne de conduite le premier ministre bi doxalal ma li premier ministre joxe ko noonu surtout légui nak président bi day nekk à hauteur di superviser ba paré di di diligenter ci diligence bi nak mu jaarako ci premier ministre bi du dëgg comprenons le ainsi premier ministre bi aussi xamné que le président de la république a été élu et que au delà de tout mom mi santaane nu voté que ca nam mbir ma tëddee moom tamit foog mu ka dooleel davantage et ça se voit ça se sent on le voit on le sent il va falloir que ça continue ainsi te yalla na wéy te yalla bu dara dugg sen diggante yalla bu dara dugg seen diggante yalla bu dara dugg seen diggante yalla bu kenn xaj seen diggante yalla na lépp rafet yenn ba Sénégal doxee fi naat di naat di naat di naat di dem ndax nag mbégte mi moo jiitu moo falu mbégte mi le chef de l'État a a par ailleurs demandé au gouvernement d'engager avec les partenaires sociaux, les centrales syndicales des travailleurs et le patronat des concertations régulières pour une trêve sociale il a souligné la nécessité de procéder à l'actualisation consensuelle du Code du travail et de la Convention nationale État employeur. D'accord presse secteur privé public nous nous respecté la convention yi loolay la grève sociale c'est quoi Moi, mouvement syndical la bu nekk ci réew amal xeex boo xam ni grève lay doon wala leneen dakkal liggéey bloqué dëkk bi et cetera président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye mu ngay sàkku ci kilifa yi nga xam ne ñoo ci gouvernement bi ñu am taxawaay bu yemb ci gisee syndicalistes yeeg secteur patronat beeg ñëpp pour que loolu bañ am ñu dem ci dalal réew mi en naa ñu lijjanti jafe-jafe du dëgg xeex social la ko tuddee donc le président a appelé à la tenue après le 1er mai, de la conférence sociale autour du thème majeur de l'employabilité et l'emploi des jeunes. conférence sociale Le président de la République a dans le même élan informé le conseil des audiences qu'il a accordé le mardi 24 avril aux responsables des centrales syndicales les plus représentatives et aux dirigeants des organisations du patronat dans le cadre des concertations pour la consolidation de la, stabilité sociale et des efforts collectifs de lutte contre la vie chère, la relance de l'économie nationale et la création d'emplois pour les jeunes. Le chef de l'État a aussi demandé au Premier ministre d'assurer avec chaque ministre concerné la coordination du suivi permanent de la prise en charge des doléances et recommandations des partenaires sociaux, centrales syndicales et organisations patronales. Lep lu ñu ci ndaje yooyu patronat centrale syndicale etc. président mu koy sàkku respecte. que doxal ca lañ ca war a doxal te na mu gën a jekkee te na mu gën a rafetee ngir njëriñu askan le président de la République s'est également dit particulièrement soucieux du renforcement de la réconciliation nationale. Celle-ci passe, à son avis, par la justice dans le traitement adéquat des cas des victimes des événements de janvier 2021 à février 2024, notamment les familles endeuillées et les blessés. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala li fi xew ci ñaawteef deux mille vingt et un mbirëb aji saar ba deux mille vingt quatre président Bassirou Diomaye Diakhar Faye nee na lii oyofal réconciliation bi mooy justice defarwaat jërëjëf lii bu amutoon ma xel dana tey ah, waaw lii buñ si waxutoon ma xel dana teey la ma wax ba ma ko wax li tam mën na ma maandu am yaakaar di puus di buste di ñaan nit di xewal am waaye dana ma am dana ma am dut dana ne ah li moom yéeme na di justice le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye oui nee na réconciliation bi lu ko soxal la national waaye loolu yaakaar na ni ca gëm-gëmam ci justice lay jaar bo xamné day traité doxal yoon ci ni fi xew 2021 à 2024 à ce propos ou à cet effet le chef de l'État a demandé au Premier ministre de mettre en place une commission d'indemnisation des victimes des événements de janvier 2021 à février 2024 Bassirou Diomaye Diakhar Faye man de découvrir aw a aw a rafet xol aw ba melone ne dana ma ah yàlla boo échoué yàlla boo échoué yàlla boo yàlla nga réussir sa mission Ousmane Sonko mi la tànn bu dina am ndam lu toll ni waaw waaw bu boobaa dana am ndam lu toll ni àdduna stratégiquement en toute bonne politique ba ñuy jëm campagne électorale da ngeen ne Bassirou Diomaye Diakhar Faye Diomaye mooy Sonko Sonko mooy Diomaye man de. jusqu'ici damay ne Basiru mooy Basiru Ousmane mooy Ousmane waaye xaritoo bi dem na ba kii doon kee kee doon kee mu nekk lu nu gëm nekk lu feeñ nekk ci doxalin yàlla bu ko dara yàq loolu nag na ma waxee woon ne Basiru mooy Basiru Ousmane mooy Ousmane loolu laay waxaat tey <coughs> laajteel ma lu tax Ousmane Sonko nee na Basiru Diomaye Diakhar Faye nii

bala ngaa gëm daa dem ba ci biir di gis yàlla bu ci cat dugg yàlla bu ci cat dugg yàlla bu ci bu rafet rek moo mun lii ne kat juboo bala moo am foog dëgg feeñ ñoo xam ne kii eh arrêté leen xeex yow yaa tooñ li ngay def noo ko mënee arrêté leen yow eh toogal non non non jarul fayut kolal kulal eh jégalu mooy réconciliation day wax pare justice tege. ñu lii waaye nag nañ leen jéggal mu teg ci premier ministre Ousmane Sonko nañu taxawal commission boo xam ni képp koo xam ni loru nga ci lifi xewoon deux mille vingt ba deux mille vingt quatre ndàmpaay la naam mënut a faj li nga ñàkk waaye ndàmpaay la ndàmpaay la nag bu mu yem ci ñi ñàkkale seen ay ñoñ yàlla nañ yàlla yërëm te àtte leen ci yërmande mi gën a kawe yàggal seen sarax ci seen ay njaboot. waaye ndàmpaay boobu ñu dem ba ci famille yooyu ñu utal leen liggéey ci ñetti liggéeyul jàppale leen dooleel leen moo xam financé seen ay projet parce que rek du ndàmpaay ni jox xaalis nii non na nekk lu leen di amal njariñ à moo xam diw doomam la ñàkk moo xam diw magam la ñàkk moo xam diw jëkkëram la ñàkk moo xam moo xam moo xam moo xam ka nekk ah famille bi lan ngeen soxla na leen ubbil centre commercial bu mag na leen jox société bu mag dañ leen maanaam jox leen loo xam ne ñoom daañ ci dund seen xel di dem ci sa kañu ñàkk di ko ñaanal ndax wërsëgam la di siy dund di si tedd dégg naa loo xam waaye tamit nañ ci boole ñi yàqule matériel am na ñoo xam ne ñàqale wuñu waaye yàqale nañu ci seen liggéey loo xam ne da leen di top da leen di lor te ay askan mën nañ cee yàqu lu mat a sóor la itam may wax ne commission Bobo, président de la république Néna, ci délai yu mu yu mu identifier victimes procéder à l'évaluation des préjudices subis ainsi qu'à la prise en charge effective des blessés en cours de traitement Nous avons xam dañoo gañu nek ay blessés jamono di ñu jël en charge en outre le premier ministre devra faire avec les ministres concernés le point sur l'état d'avancement de ce dossier prioritaire tous les 15 jours en conseil des ministres deng nga na conseil des ministres bo am tay amat semaine prochaine ba ca top nañ ko defal évaluation suivi ci mbir mom mbiru indemnisation victime yi ak sen ay ñooñ ak sen ay famille mbiru justice bobu ñu wara taxawal ci li fi xew 2021 à 2024 monsieur Diomaye jahar fa yalla na yalla fay Ousmane Sonko yalla na yalla fay gouvernement au Sénégal yalla na yalla fay ngeen ka bindé ni di ko annoncé nii xeex leen bu leen nelaw amal leen ko noonu ma ñu tàccu leen de waaye ñu leen di ñaanal ngeen di gën di jëm kanam yàlla na ko yàlla defal ak seen njaboot te lépp leen jik ñu barke salaat faat ak alxuraan barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam képp koo xam ne yàqkat la doon waaba jiiba doon majjus makka ki yanki yanki doon waya waya baya baya gëgëgëgëgë nit ka bon yàlla na leen sore yàlla na sore senegal yàlla na nu sore barke salaatu fatiha ak alxuraan barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amin ya rabbi le chef de l'État du Sénégal ñëw ci li nga xamni moy tukki yi mu amuloon ci Mauritanie ak Gambie waxtan na ci le chef de l'État a remercié donc les présidents Mohamed Ould Cheikh El Gazouani et Adama Barrow pour l'accueil exceptionnel oui et l'hospitalité généreuse qui lui ont été réservées, ainsi qu'aux délégations qui l'accompagnaient dans ces deux pays frères. Sénégal, moi, Mauritanie. Mauritanie, moi, Gambie. Gambie, moi, Sénégal. Les deux, les travaux plutôt très fructueux de l'étape de Nouakchott a informé le président de la République ont porté notamment sur le renforcement de la coopération en matière de défense et de sécurité à la frontière face aux menaces transversales que sont le terrorisme, la criminalité transnationale organisée, le trafic international de drogue et d'êtres humains, ainsi que la migration irrégulière. président Bassirou Diomaye Diakhar Faye fële Mohamed Mohamed El Ghazouani Ould Cheikh El Ghazouani c'est waxtaan dem na ci lépp loo xam ne sécurité en général sécurité bi war am ci frontière bi ci ci njaayum doomu aadama yeeg ci drogue beeg ci ci terrorisme crime organisé la redynamisation de la coopération en matière de pêche ça a été un sujet à cet effet le président gazouani a assuré que son pays est disposé à partager les ressources halieutiques et prôner un échange d'expériences en matière de gestion et de, ces ressources il a également invité les deux pays à une surveillance maritime commune renforcée pour faire face aux bateaux pires président Mauritanie président du Sénégal nañu suñu ay le retard noté dans les travaux d'exécution du pont de Rosso chaque partie étant invitée à lever les goulots d'étranglement fleuve Bobo, rive gauche rive droite Rosso Sénégal Rosso Mauritanie Bon, fa va pont un ñi nekk le pont de Rosso la bloqué Bassirou Ould El Gazouani, Mohamed Ould El la coopération en matière d'énergie l'accent a été mis sur le retard de 28 mois des travaux de GTA et la nécessité de constituer un seul bloc uni face à l'opérateur BP pour ne pas décevoir les attentes des populations mbiru gaz bi wax nañ ci donc 28 mois de travaux de GT GTA dafa am blocage boog retard mbiru BP la ñaari président yi waxtaan nañ ci daan ci ut saafara nu mu s'agissant de l'équipe de la Gambie parce que gaz bi daf na wara a amal njëriñ gaaw s'agissant de l'équipe de l'état de, de de la Gambie fële ci Gambie le chef de l'État a informé le Conseil que ses entretiens très fructueux en tête à tête avec le président Barrow ont porté dans tous les domaines de la coopération avec un, un accent particulier sur la la défense et la sécurité sécurité un domaine dans lequel le Sénégal continuera d'appuyer la Gambie dans sa quête de stabilité voilà c'est c'est le Sénégal qui sécurise euh, à un certain niveau le renforcement de la lutte contre les actes criminels de coupe et de trafic illicite de bois qui continuent de détruire les forêts respectives des deux pays voilà Bonne nuit, ñuy la coopération dans le domaine de la pêche les concertations en vue de consolider les acquis notamment en termes de facilités accordées aux pêcheurs des deux pays seront poursuivies la libre circulation des personnes et des biens les transports terrestres aériens et maritimes qui feront l'objet d'un suivi permanent toujours la hausse de la taxe du ciment en provenance du Sénégal dont la mesure a été suspendue en attendant la circulaire qui devait être signée pour la rapporter enfin le président de la République a évoqué l'audience qu'il a accordée à M. Charles Michel président du conseil européen le le lundi 22 avril 2024 foofu nag faaw mu taxaw si tuuti naa dégg coow li bare na ñi naan non Charles Michel du borom ñaari tour Charles Michel du voilà ñi naan moom la et cetera et cetera doonu ko waaye fële ci Nations Unies défendre na leen daf leen a défendre ba ñoom nit ña bot ñooñu waaye waaye di borom ñaari tur yi yu góor yeeg yu jigéen yi dajaloo daal di kaa jox ndàmpaay kontaan lool ci moom. ñëw fii ci Sénégal nag c'est professionnel c'est le président de conseil européen faaw nga wax moom wax ak moom ne veut pas dire nangul ko yooyu ñoom ñu nekk yu bon yooyu déedéet wax moom ci la fi indi ñu discuter ci vite fait et mu dem yoonam lii dëgg Sénégal dafa war a borom ñaari tur yooyu góor jigéen Ousmane Sonko ak ñi mu àndal ak le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye certainement ci loolu la ñoo dox. loolu ko confirmer ñu xamal yu ngeen ngeen bañ ñaari jabar bañ voile mais yu ngeen ba bëgg ñu ko imposer ci le eh, nouveau président de la du Sénégal Ousmane Sonko est nouveau premier ministre du Sénégal tout change alors dans sa communication au Conseil, le Premier ministre a fait part de l'audience qu'il a accordée à son Excellence Mohamed Djoulé Diallo, vice-président de la Sierra Leone, le lundi 22 avril 2024 sur instruction de Monsieur le Président de la République. Sylvain, Yang y Yang Bach, ensemble ils ont procédé à la revue des titres axe de coopération entre le Sénégal et Simon et, la Sierra Leone plutôt. Sierra <laughs> Leone de maa Diego Simeone <laughs> Atlético de Madrid xel graw La ilaha illallah dégg dafa dalal ki di Mohamed Julde Diallo xam Afrique Mohamed Julde Diallo Sierra Leone ngeen xam Afrique c'est le même peuple donc, sur instruction de M. le Président de la République, ensemble, ils ont procédé à la revue des principaux axes de coopération. Donc, de Sierra Leone à Sénégal premier ministre B. Hein, Ousmane Sonko et premier ministre B. Mohamed Djul Diallo Sierra Leone nañu gannaaw bu kii di président de la République Bassirou Diomaye Nango, fay nangoo ndaje boobu ak ils ont également échangé sur les voies et moyens de sa redynamisation en vue d'offrir plus d'opportunités au secteur privé des deux pays. À cet effet, ils ont convenu de proposer aux deux présidents de la Sierra Leone et du Sénégal la tenue d'une commission mixte avant la fin de l'année 2024. Sous président président africain non alors le premier ministre a également informé de la conception d'un projet de nouveau de nouveau référentiel du dialogue social conforté par les riches échanges tenus respectivement avec les organisations syndicales représentatives et patronales sous la houlette de Monsieur le Président de la République ces travaux aboutiront à une gamme de mesures devant mettre ou permettre une bâtisse, une baisse plutôt conjoncturelle du prix de d'arrêt de première nécessité et un canevas pour la refondation du dialogue social prenant en compte notamment l'équité salariale. Les engagements du gouvernement, la sécurité des emplois et les droits et devoirs syndicaux. Conformément aux directives de M. le Président de la République, Formulé à l'occasion de la réunion du Conseil des ministres du mardi 9 avril 2024 pour la mise en place effective et rapide des cabinets ministériels et, de, et la proposition pour chaque ministère d'une nouvelle organisation rationalisée, ainsi que des nominations conformes. Hein, Sylvain Conformes d'une part à la réglementation en vigueur et d'autre part aux objectifs sectoriels validés. Le Premier ministre a annoncé la mise à disposition des ministres et secrétaires d'État à, disposition donc des ministres et secrétaires d'État dès ce jeudi 3 <laughs> et ce, dès ce jeudi trois circulaires. Une circulaire relative à la composition des cabinets des ministres et secrétaires d'État pour rappeler les règles relatives à la constitution des cabinets des ministres et secrétaires d'État ainsi qu'aux fonctions et conditions de nomination de leurs membres. Une circulaire relative aux relations entre les ministères et secrétaires d'État pour préciser les dites relations en vue d'éviter d'éventuels conflits et dysfonctionnements afin d'assurer au sein du département ministériel une plus grande cohésion et une meilleure cohérence de l'action gouvernementale. Nous avons organigramme une circulaire relative à l'organisation du travail gouvernemental pour rappeler l'importance de l'organisation et de la méthode dans l'efficacité du travail gouvernemental. Programmation, organisation, coordination, contrôle et suivi évaluation des politiques, projets et programmes. Le Premier ministre a par ailleurs fait part de l'élaboration du plan d'action gouvernemental avec un canevas qui sera mis à la disposition de chaque ministère par circulaire. Cette dernière précisera les actions les plus urgentes à exécuter par les ministères, oui, avant le 10 juin 2024 en tenant compte des allocations budgétaires inscrites dans la loi de finances initiale 2024. Mirmangui, Hein, Sylvain Ça bouge, hein Les actions prioritaires au titre du second semestre de l'année en cours, ainsi que les ressources budgétaires nécessaires. Les programmes et projets à l'horizon 2029. Ça rassure. Hmm. L'ensemble de ces informations mises en cohérence sera la trame de la déclaration de politique générale que le Premier ministre présentera à l'Assemblée nationale. Discours de politique générale, Ousmane l'Assemblée nationale. Ni la S'agissant du travail d'élaboration du document de référence en matière de politique économique et sociale, le projet, le Premier ministre a affirmé qu'il portera exclusivement le sceau de l'expertise sénégalaise et sera achevé au troisième trimestre de l'année 2024. Hmm. Alhamdulillah. Sylvain, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. À cet effet, un comité technique restreint sera mis en place à la primature. Oui, tout est en train d'être concentré à la primature. Euh, entre le président de la et le Premier ministre. C'est très bien, c'est excellent. Mais plus vous déléguez, mieux vous serez. Au-delà de tout. Quand bien même qu'il faut le suivi conséquemment du Premier ministre vis-à-vis de tout ce qui est mis en place, euh, vis-à-vis aussi de ce gouvernement. Mais il est quand même important de ne pas donner cette impression que tout est concentré à la primature. C'est important. Ça peut se faire sans que ce soit dit. Oui, ça nous halate là hein, Il y a beaucoup de choses yu mëna Donc parce Il faut pas trop concentrer les pouvoirs loolu la ñu bañ ci présidentialisme fort donc dañ ka bañ itam ci benen fan ci nenen na nek rek lu lu lo xamni dana yama may yemb di yemb ba du dis trop ci gis-gis ak deg bu ci amé lén lo xamni mën ngeen ñuko doli tam ci rectif ci rectif ngeen defal nuko ko nañu bay xel né nguur gu bari kenn ko concentrer ci nit baxul day day day day indi eh, dana indi choono dana indi lenn lu fa newutoon dana indi loolu ak loolu ci jiixi jaaxa yalla bu mu dal nguur gi motax lepp lu ci am itam na and ak mesure nu am lenn li lo xamni da daa ni mu am no xamni dana ko tëddee ba du 10 ci ki ka yanu ndax ba yano bu ci trop itam mën na indi choono nu bàyyi sa xel nu bàyyi sa xel bu baax les services de contrôle de suivi peuvent faire le travail et rendre compte au Premier ministre avec des documents à l'appui waaye bu ngeen des lépp dajale ko ca primature ñu war faa daje war faa gisee war fa nek ñepp fa nek bu yàggee Ousmane Sonn loolu itam bàyyi ci xel nit la amé njaboot war di am moment pour mom au-delà de tout quelqu'un me dira yow lu la si kii nga xamni joxé na boppam pour askan wi le don de soi oui waaye nit du la jox lépp nga jël lépp Ousmane joxé na bu ñu jël lépp dañ ko bàyyi créel li muy am taawu noppalu léeg-léeg waaye bu ñu dajalee lépp si kawam rek mën naa diis bu diisee coono li nekkaat suñu kaw hmm? Hmm, sanu xalaatam bopp la bàyyi leen ci xel kilifa xam nañ ni defar rek leen tax a jóg waaye bàyyi leen ci xel bu baax Ousmane mën naa am bët fu ne na information bi di agsi rek waaye bu ngeen jëlee service yëpp concentré ka fa itam ah attention mën naa diis attention on le dit très sincèrement Nous wax ne comité technique restreint bobu qui sera mis en place à la primature bari na ay commission leneen yo xamni mu nga jokk fofu ci primature am nañu ay ministre am nañu gouvernement dañ leena a dénk ka si nekk lañ la dénk bu premier ministre bi waree def sa liggéey itam ah bu yagge dana metti donc ñoñu lañu def sen ay liggéey indil que de façon synthétique et synthétisée mu am ci lisibilité mun ci am visibilité mu na xol lañ bëtt yomb na les services administratifs vérifient. ah, monsieur le Premier ministre, oui, effectivement, le travail est bien fait, le suivi est correct. Pour mm, concentration de trop, Donc, l'instance-là dont on parle, hein, ce comité technique qui sera restreint et mis en place à la primature, il sera composé, ce comité, cette instance, notamment des ministères en charge du plan, des finances, de l'industrie, de la souveraineté alimentaire, de l'emploi, de la transformation du secteur public et du bureau organisation et méthode, la BOM. À l'issue des travaux, poursuit le Premier ministre, le cadre de référence pour la matérialisation de la vision de Monsieur le Président, de Monsieur le Président de la République pour un Sénégal souverain, juste et prospère à travers la conception de programmes et projets de, transformation systémique sera soumis à la validation du chef de l'État avant la fin du troisième trimestre de l'année 2024. Au moins, voilà un gouvernement qui nous dit sur un temps, sur un échéancier, que vous n'avez niveau sangam li ni la ni la tete à date échue le premier ministre ou la première phase plutôt du plan d'action pluriannuel pluriannuel du projet sera inscrite précisément précise-t-il dans le projet de loi de finances initiale 2025 qui sera soumis à l'approbation de l'Assemblée nationale au début du mois d'octobre prochain. Oui, n'a pas régime pour finir budget lépp loo xam ne nguur gi ñëw na war ko cee def su waree laal budget rek dafay obligé xaar 2025 incha allah foofu la wax ni daanaka moo war a nekk sax tàmbali projet bi ñoo annoncé waaye projet bi am na ñenn ñi ñu ngi naan ah kon ñii seen projet bi binduñu ko woon bu dee dafa am lu war a pare trimestre euh, bu mujj bi wala bu lu war a pare euh, à telle période juin wala lu lu mel ni lu ni mel kon pare wuñu woon wax ak dégg wax ak dégg projet ci wàllu conception tu vois prospection à perspective dans le temps ça évolue dans le temps ça évolue en termes de contenu oui il est où le projet il y a quoi dedans concept là un projet c'est d'abord un concept après la phase de conception ben, c'est la phase de euh, mise en pratique au-delà de la définition des stratégies et autres et apparemment sur deux ou trois conseils des ministres on découvre en tout cas ce qui se passe, c'est que ce régime-là est en train de s'organiser pour pouvoir mettre en place. Il est en train de travailler sur son contenant pour aider sur son contenu. je pense que nous devons comprendre. Alors, au titre des communications des ministres, le pacte le vous président de la République a premier ministre C'est une communication du conseil des ministres maintenant les ministres ont communiqué le ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation a fait une communication sur la situation de l'enseignement supérieur et de la recherche Diouf université bu euh, alors le ministre des pêches lui des infrastructures maritimes et portuaires a fait une communication sur la procédure de sélection d'un opérateur pour l'exploitation des chantiers navals de Dakar on a des charpentiers le ministre de la famille et des solidarités a fait une communication sur le lancement du projet de résilience et de développement communautaire de la vallée du fleuve Sénégal PRDC VFS, financé par la Banque mondiale. Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture a fait une, communication sur la mise en vente publique aux enchères de la bibliothèque du président Léopold Sédar Senghor en France. Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage a fait une communication sur la préparation de la Tabaski, le bilan de la campagne agricole 2023 et la préparation de la campagne agricole xanaa neex yàlla na ce communiqué donc ainsi libellé xam ngeen ka def bind Moustapha Sarré Amadou Moustapha Diek Diek Sarré hmm? un communiqué fait à Dakar le 24 avril c'est le ministre de la formation professionnelle ci biir communiqué bi ngeen la République soñ ak le premier ministre soñ lii des conseils conseil des ministres bi am tey à l'heure du di 24 avril feulé ci palais de la république diggante le président de la république le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar fay ak son premier ministre Ousmane Sonko avec son gouvernement et ses ministres Sénégal a ngi ni réew maa ngay dox légui nak ka contane tégal ataaya tégal tisaan nanal nguer bo sojee jëlal kénkiliba def ci une cuillerée de beurre de karité lu nekk sa gorge bi deñ moo xam nga angine moo xam nga leneen leneen naanal buy bu tàng antibiotique la day yokk énergie naanal ba doyal ba ba ne ba suur ba ne këll lekk ba suur naan ba doyal nag waxuma naan hmm, waxuma lekk hmm, bayam rek lépp avec mesure kontaan nan kontaan kontaan naat kontaan naat nanu kontaanati yalla na fi yalla wàcce xewal yalla na fi yalla barke wàcce barke ak yiw euh, sylvain let's let's move on dañuy jóg taxaw sant sunu borom hein senegal da neex da wara neex te dana gëna neex bu rabbi samawati no ziar sunu kilifa yi gannaaw bañ jógee ci sunu maam khalifa ababakar si dimanche bi ziar général bële ci taw tiwaawan tiwaawan fees nit nak nek ñu fo won waye sakku nañu ñaan ci sunu baye ya fa ne ñoy xalaat sunu baye yu baax ya sunu mam sunu baye sunu mam sering babakar ci mansu, ak jabot ke yep xalaat sunu baye ba sunu benen bayat mamat bayat bay bay si Abdou babakar si Abdou bu sunu mam Abdou Aziz si Dabakh Malik sunu benen baye ba serigne abib si bu sunu mam serigne Mansour si borom daara ji serigne abib si bu sunu mam Abdou Aziz si Malik sanu yaay kinne si bu sanu maam Serigne Cheikh Tidiane si al maktoub ak sanu kilifa ya fa nekk yëpp ñu ngi leen di ziar hmm? ñun dañuy wax lébu yu ñoo lébu yu ñoo naan ah Baye Laay moo la rasuul maam Xalifa Ababacar si moo la ñëpp Serigne daal ne Alaaji Fàllu moo la ñëpp xarit maam Baye moo la ñëpp soppe daal ne Cheikh Umar Fuuti aman ndaak aman jigéen aman dem aman Siise ca Pir aman dem ca Sokone sanu Baye sanu maam Abdoulahi Siise ca jaamal Aliou Assé Siise ca jaamal daal ne sunu maam Abbas Sall ne sunu maam Rawaan Ngom ca Paal ak sunu kilifa yëpp daal ne cardinal Hyacinthe Thiandoum xalaat sunu mbokk chrétien yi ma man dama am ay cousin chrétien bu baax Élisabeth Gomis njaboot ga yëpp ñoom Auguste ak ñëpp maa ngi leen di ziar di xalaat sama cousin Halpulaar ñoom Cillo ñoom Bokar lii maa ngi leen di ziar de vous ma famille di leen leen tatagal di wax ne kontaan nañu conseil des ministres baa ngi noonu yéen kilifa yi yéen a ma wax chaque chaque mercredi ma kaa ma jukki nii di si waxtaan ñu ngi jéem Pass TV nag yéen a ko moom euh, Madina ñëpp xarit sanu bokk sanu am di jàmm sanu wëllëre nu ngi laa di ziar yaa booy bàjjen njaboot gi yëpp di wax ne kontaan nañu Euh, Madina nag def noo proposé nee na na gars yi souscrire nee na ma joxeel numéro de compte bi joxe yëpp ndax Pass TV dañ ko doole na ci sénégalais yëpp dugal seen loxo ñëpp nekk ci actionnaire sénégalais yëpp doon ci actionnaire ma ne ko ah actionnariat boobu dina xaw a kii boo xam ni day nekk lu gratuit ñu jébbal ngir nga mën a liggéey waaw confortons les sénégalais nañu jàppalante l'économie solidaire doolante

des leaders des entrepreneurs des chefs d'entreprise C'est ce que je veux dire. du bëri xam ni vidéo bi xaw mais jukki la rek ce hmm? ci def yeneen résumé yu gàtt comme nous ngeen ñu suggéré comme nous ñu ko fait dans nos vidéos Inch'Allah, rabbi content. nañu Passe TV abonnez-vous, faites partagez likez aimez et puis soutenez-nous kontaan nañu ci je vais donner le numéro de téléphone 70 630 08 08 70 630 08 08 du dëgg kontaan nañu si yéen yàlla na yàlla fay leen dina len defaral adresse email defaral len yenen lolok lolok loolu ci top. ba nga xam di am li ngeen soxla ci chaîne bi Tayit nak, vos produits sont les bienvenus sponsorisez cette chronique concernant le conseil des ministres donnez-nous vos produits nous exposer que, on va utiliser notre image pour votre produit ou vos produits. Vous allez gagner chez nous, on va gagner chez vous. Les règles nous am. Média mom, l'en la am, publicité. Beaucoup amul, du exister. Yal na yal sedel sen xol. Yal na yal defar sen ay mbir. Kasi nek di nu setan. Yal na yal defar sen mbir. Ba, nga yéemu, te lépp jik la. Mu ànd ak fan wu gudd wér kasi gi jabar ga barkel dund ba setaat ja te tal ko. Mu ànd ak mucc muccule ak mujj ga rafet. برك القرآن برك سعد فاتي برك سابن كاتمين بوفيتي برك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين جرين جف سنغال نوفر